jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte mbokk yi comme nuñ koy defee saa su ne ñu ngi fii ci géejawaay seet si fi xale boo xamante ni champion la ci làmb barki démb gis ngeen journée bi fàllu Ndiaye tëgg stade Diom Iba Mar Diop grand combat bi doxoon ci bébé bismi ak Ada Fass bokk na ci ñi bëre spécialu combat bi am ci ndam lu rëy kooku lañ dalal tey ngir waxtaan ak moom mooy Baye Mandiaye numéro 2. mi ngeen xam menn mi moom la wasaare seet si ngir ñu waxtaan Baye Mandiaye maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay salaamaaleykum auzu billah bismillaahi inna waani yàlla jërëjëf Serigne Touba ginaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi di sant suñu ñaari waajur di ñaanal sama papa fi mu tëdd gënal ko fi mu jugee di ñaanal sama yaay yàlla bàyyi ko fi ba mu fekkee suñu njëriñ di sant sama waa koñ nag di sant sama mag Abdou Mbaye di sant Malick njool Jibi Balle. sant am Zil Ndiaye Ahmed Bogis Thierno Mbaye Bayal Jibi Sarr sama booy ah sant Mafia fans club bi Balla Ndaw Natwa ah. sant sama fans club bi ñoom géwal boo limee daal da ngay juum maa ngi siyaar ñëpp di ñaanal sama mag bi mam xaa combat bi la le 29 yàlla may ko ci ndam di ñaanal Alioune Seye 2 yàlla may ko ndam ci combat bi Papa Boy Djiné yàlla may ko ndam Macha ah waa ak Madji Madji ak Boy Pira di ñaanal waa écurie gi képp ku ci am combat ñi ngi lay ñaanal yàlla suñu borom may lam di sant ron kosu ak zil di sant sama entraîneur vie bu centre ba day daj ci man ay coono yu méttee métti maa ngi koy sant di gërëm grand Jéeri Koli grand Abdou Salaam xam di sant waa koñ bi daal ñëpp Modou Awo tamit borom Foundiougne di sant waa Thiaré waa Foundiougne. boo santee moom buñ ko bu ñuy tëj est-ce que di nga sant. waaw di leen nuyu rek di leen siyaar daal waaw kon ñu waxtaan ba si kanam. Ndeysaan Baye Mandiaye numéro 2 lan moo la dugal ci làmb. waaw làmb moom comme comme lu si dugal gars rek nekkoon xale rek di ko foowee man moom làmb laa mosu dund di ko foowee ba ma nekkee xale ba ni ma màggee moom laa xam moom laay dund waa bëgg si teral tamit sama yaay quoi loolu moo ma si dugal. kañ nga njëkk a bëre Mbapat. Mbapat maa ngi ko bëree sama buntu gaale. waa li may wax yàgg na temps dama daan football sax ci bal ni di fowantu sama benn mag Zos laa gisoon muy bëree moog Nigéria foofu noonu waa Zos man Zos sama benn mag Zos la tuddee woon boppam nag. maa mm. mais bëreetul léegi quoi muy bëreeg Nigéria rek xam rek soo gisee sama mag di def dara man tamit ma daw kër gi rek ut sër. Alaaji moo ko tëggoon benn grand bu ñuy wax Alaaji foofu mu ut sër rek mu boole ma benn gaan Amet ñu bëre man ak Amet Amet daan ma. Mm. waaw loolu daa moo ma dugal si làmm après ma commencé di ko foowee adopté ko nag di bëre fu ne ma dem fa di bëre ay mbapatu koñ affaire yooyu noonu dem waa tey mooy loolu sant yàlla. Mm. kañ nga dugg si arène. jour combat Yékini Lac de bu mujj bi. mooy la de Guiers 2 Yékini. Yékini boobu laa bëri sam premier combat. waaw. mu bëri kan. mbës. mbës ban Yékini la nekkoon. jàmm gën ah si jàmm gën waaw si ka mbaaw waa jàmm gën si ka mbaaw xuma jàmm gën booloo daal. fi mu toll nii nga toll ci ñaata combat. man maa ngi six six combat. maa victoire. kon daanoo góo ci lamb. non six combats six victoires loolu nag du sama mënin de yàlla suñ borom la rek ñu ngi ñaan mu xeeb dolli. Euh, sa bëgg-bëgg ci làmb lan la. ah doon ruwaa rek indi ko guy ga njëtt mbaar darkase gunaas xam nga géejawaay gi. waaw parce que dañu maa yaakaar daal loolu rek moo doon sama objectif si làmb waa doon roi des arènes lu ñëpp bëgg loolu laa bëgg waaw. Euh, saison bi nga mujjee bëre sa combat yaa ngi ko bëre ci suma jumul Ada Fass bébé bismi nga bëre ceeg booy bi nekk euh, parcelle nu mu tuddati. Hercule. Hercule bu parcelle. waaw nga bëre ci sañ-sañ boobu ngeen bëre yéen ñaar mën nga ma expliquer sa combat yaak Hercule ndax gis naa mu jël fa sa tànk ñaari yoon nga bàyyi ko moom bëre ba mën nga mu ko expliquer. waaw xam a c'est que parcelle dama faa duggoon ñetti yoon. damaa dugg parcelle daan fa saara. daan doomu parcelle daan Hercule ñoom ñoo bokk même gox ñoom ñett. xam nga daanaka sax ñooy ànd di. ànd booy boo xamante ne ma koy gis ci moom laa daan sama deuxième combat ren te ba ma koy daan maa ngi doon lu cum daan ko deuxième combat bi ma waa doom passé laa daan sama quatrième combat nag Hercule naa moom it danaa dama leen di fayal Hercule nag combat bi moom du moom dama ne amateur yi ñoo ko bëggoon ndax damaa daan ay xaritam mu ñëw yenn bis bi léegi dama ko dem wan man góor la waa maam ñee daan naa leen mais. loolu mi ngi sama ginnaaw fàtte naa ko te yàlla xam na ni bàkki Cheikh Ahmadou Bamba bëreegu ma sax dama leen dem woon ne maa dàq dàq ko bëre te ba mu ñaar yëpp ba mu ci benn ba mu ci dem rek moom ñam na ci xam na waa lu may saf man. Mhm. bi ngeen bëree arbitre sifflé ngeen commencé xeex fetal yi tàkk. arbitre daane prix ma toog samay tàng dox ñëw ci kawam rappel ko ah rappel ko waaw moom ñu joxante foofu noonu mu dóor na ma nag foofu kuubu dal après yaa ma gën a xam lu ñu naan gaynde moom boo bëggee jàpp da ngay nangoo ñam te man moom ragalu ma ñam quoi ma dox ci kawam kor ko jox ko ay coups foofu xam fu ma waxee mu kaawoo nag ba mu kaawoo nag instant boobu noon loolu moo gën a yàq bëreem nangootul bëre ndax ndax mi ngi sóoraale xeex bi quoi te man sax yàlla xam ne ne xeex bi dama dama leen ciy ñamal nii rek waaw mais mën naa ko nag mais pareeguma pour xeex heure bi dama ko bëggoon jox rek mu mos wàll. dama ko bëggoon ñamal quoi dama ko bëggoon ñamal pour bu demee si ñoom doomu paase la ak ñoom Saara. merci mu ne leen bu keneen ñëwaat quoi booy bi lu muy saf xam nañ ko. <laughs> waaw noonu la demee nag. moo taxoon quoi léegi ba ñu bagaaree man ak moom xeex. après daa daw xeex bi. Mm. xeexatul quoi. ba pare man xam rek baas bi boo xoolee tarkis naa ñetti yoon baas bi suuf bi bariwul loolu ma koy waxaale waa CNG pour ñu bàyyi xel léegi sax arène nationale lañ jëm métteetul suuf bi bëreetul. Hmm. waaw gi na ñëw sëñ Bas loo def la. suuf si bëriwul quoi. dama koy naax su ma ko plaqué damay tarkis. Hmm. mais xëy na dama ko ëpp doole mu mënul ci man dara boo xoolee bariwul man maa def lépp. ndax njëkk naaxaat daan xam nga naax naa ko plaqué ko mu def kaat at. ma wër ko ndomba mais ma foofu sax. ndomba boobu moo ma jaaxal wër ndomba bi lu tax nga wër ko ndoom ndomba di xoole ba mu. ba mu raam ba génn la dama koo naax. palaaki ko tarkis seeg ci biir tarkis man jiitu naa ko mais dama ko ëpp doole dama koo fitlax ci kaw. mu mu rëpp kat ab ma daw wër ko ndomb mais fi ma ko wëree ndomb benn tànkam bi mi ngi si ginnaaw benn bi xam nga foofu boo xoolee tappi la diggante saako yi foofu boo xoolee kii la quoi baas foofu pour nga dem day yomb te moment boobu njett naa ko bugguma fa nekk nag mel ni ku gëmeewul wër ndomb bi. waaw dama ko dama ko bëggoon wax ne su la daanul fii dama lay daan fee. Mm-hmm. te def na quatre appuis mais bàyyi ma ko sax xel après la ma ko di waxaat. man moom damay rek ci laaxo ko bàyyi ndax foofu nag chargé naa ko ay ku mm-hmm. xam waa gis nga bàyyi faal bi ah. ci laaxo ko bàyyi na ko ñëwaatal. boo xoolee ba ñëwee man fi ma daan taxaw ba may bëreeg doomu paaseel ak saar xëy na dañ ko ne bul taxaw foofu moom mu ñëw na fi ma daan taxaw fa lay taxaw ma ne ko ñëwal taxaw lu ñu bëri man sax maa koy fàttali bu ñu koy taxaw fee ma ne ko kaay nii. xam nga noonu. waaw amul de. boo baax de mooy borom léegi. xam nga. Hmm. léegi man ak moom foofu wër naa ko ndoom mais bu dama ko bëggoon wan ni man maa ko gën a nekk xale maa ëpp doole moom xam moom xam na ni sax maa ko doole maa ko sañ-sañ maa ko fit. bi billaay wallaay tallaay. léegi noo ko defee ba daan ko ci ci deuxième. deuxième action bi foofu comme li ma lay expliqué dama koo naax. dama koo naax di ko plaqué ma tarkiis ah comme bam baas bi bëriwul quoi ma tarkiis foofu nag moom dama ko xaw ëpp waa tuut léegi si biir tarkiis man balaa may jukk rek moom ñëw na. daw jël tànk bi nag léegi ba mu jëlee tànk bi ma def rotation bàyyi ko bi daw dugal sama loxo ci bopp bi waaw instant bopp bi génn mu tànk bi nag. ma daw ñattu ko jàpp ci ngemb li instant boobu moom tànk bi da koo téye dem ba tànk bi sonal ko nag. Hmm. Hmm. xam ma lay wax. xam xale bu entraîné ay tànkam moom kooku boo ko jëlee trop tard da ngay bàyyi wala nga mujj daanu. Hmm. mu téye tam ba mu bàyyee nag laa def bi. daw di ko wër wër naa ko ndomb bay xool sax mais moom daa gaaw quoi xam nga <laughs> ma daw di ko wër. mu def rotation bi tourné nag ci laa ko pekatee forcé ko. laa ko pekatee dem moom forcé ko mu daanu. sa kenn talut lekk talut naan gars yi tooguñu taxawuñu li ngay bëri yëpp maa ngi xool sa cumikaay bi mais yaakaar gi ñu am ci yow ak ak gëm-gëm gi ñu am ci yow est-ce que yow xam nga loolu. waaw billaay gars yi moom awma seen fay ku ci mel ni kii toog nii kii toog nii mooy sama lépp kii ngay gis nii ah bëgg nga jëlal ma ko kii mooy Milka. bu bàyyi ma njaay. Hmm. xam kii mooy sama lépp mu jibi balle pël bi. ba mu méttee ñoom rek laa gis yàlla xam na loolu ak ñoom am ak amet bu gis gaa yooyu Zil Ndiaye ñoom laa xam quoi mais comme li ma lay wax rek ñoom ñoo tax mbër bu ma bëgg a daan da ngay jël sama bakkan chaque jour dama koy wax dama leen naan nag man mbër laa bërikat laa mais loolu après lañ koy xam. làmb ju bëreegu ñaar yëpp ñaar yëpp laa boole xam ñëw ñaar yëpp ñëw mbër mbër mbërekat. bërekat bi boo xoolee xam nga mën ko doon mbër rek nga dugg ci biir làmb lu la yàqal yomb wala. mais boo boolee ñaari doon mbër doon bërekat yow lu la yóbbu du yomb dama damaa bokk ci genre merci damaa bokk ci genre doomu aadama yooyu man lu ma fëq ci làmb yombul man mbër yéemu ma yàlla xam na loolu damay dem si àll bi di jël ay façon nag bu ne jël naa yàlla xam na loolu man mbër yéemu ma. Mbapat di yaa ngi génn di di di compétir comme say morom. bu baax a baax a baax mais xëy na dañ naan booy génn di compétir rek boo ne maay ko mbëri ragal la hmm. loolu moo tax ñu bari sax léegi dañ koy nëbbu duñ ko bëgg di wan. mais depuis daaw ba ren fu mu mus a dem ci làmb lu ñu teg maa ko jël. léegi limal ma benn mbër boo xamante ne mu ngi toj ci làmb simple wala bëre door nga bëre ceeg moom. Jacob Baldé. ñenn waaw dama kaa yendu ba ci suuf daan naa ko. doomu persil moom rek dañu may daan ci àll bi ñoo ko gën a diis sax moom yàlla xam na loolu ñoo ko gën a diis fuuf c'est que xam man ak ñoom dañoom am différent man aw ma bàyyi mbër aw ma mbër aw ma samay xarit sa du ñu mbër mais damaa am jomu làmb jomu làmb boo déggee ma dama koo am nekkul ngémb rek dem mbër ji man damay entraîné matin soir te xam dem entraînement daam ak entraîné man dew ma entraînement de man damay entraîné. damay daj ay coono yàlla xam na loolu billaay wallaay. bu am njëriñ ngay merci damay daj ay coono nga takk say dàll ne yaa ngi entraîné te doo changer doo développer doo def dara. merci mooy def équipement bu rafet. romb sa waa koñ falaa dew dem. merci ñëw géej jóge géej wala école ba takk suuf loolu taxul nga entraîné. merci entraînement daa am ak dem entraînement man nag damay entraîné. nga nekk di def lu métti lu xoteeku. te yàlla xam na ni maa la wax fii ma toog. Hmm. li ma lay wax bu amut café gi mel naan. yàlla bu ma yàlla bu ma yàlla bu ma daaneeti mbër. yàlla bindul mbër bu ma gën a ñemee entraînement. dama koy daggee ci kaw ñu ci kaw ba ñu ci suuf mbër bu ma àndal nga def dara ma def lu ko duubul bi te xale bu ndaw laa nag yeggagu ma fenn. ñaata at nga am. man maa ngi la 98 le 11 novembre. bàkki Seex Ahmadou Bamba ak gi may naan 11 novembre 98 laa judd. non xale nga. billaahi wallaahi. Ah? ñaari at la magee tas yaakaar sama xarit ci la sam papa gaañu. ndeysaan ci weeru koor. laa judd 11 novembre 98. weeru koor ba may bëre ko yi ki laaj père Babou daf ma dem ree dafa yokk sax samay at. Babou moo nekkoon sama minager temps yooyu. dafa yokkoon samay at. daa ma da ngaa ndaw xale nga. ma ne ko père jàppale ma rek ndax bëgg a bëre yàlla xam na loolu. billaahi wallaahi tallaahi ndax bëgg bëre. na ko père jàppa parce que dama daan dem mbapat feesal ko dell. waaw ma gis mbooloo bu topp sama ginnaaw noonu ma jógee sama benn grand ndeysaan jeere koli hmm. na ma yow dootoo bëre mbapat ma xoolaat sam boobu ma ni man mu ne ma lii toppal li ni arène nga jëm affaire yooyu gëmloo ma ko nag grand jeere moo ma gëm loo woon loolu quoi man tamit xam ma am ci gëm-gëm gëm nit man xale laa te ñeme naa affaire bi quoi maa ngi internet hmm. waaw ma ciy nekk chaque jour rek ba instant bi may wax ak yow xam lañ dem xam li may ñu jëloon samay na naataango samay moom ñu daan wax ay champion la ñu tëggoon ko tournoi. loolu dinaa ci ñëw say morom mais promoteurs yi actuellement fi ñu toll nii ci làmb ñu ngi contacter booy ba nu mu tuddati Baye Ma Ndiaye numéro 2 bëgg sa combat. bu baax a baax a baax ku ci mel ni Fallou Ndiaye sama papa ji moom mi ngi may woo bu baax ak Yadaali kooku moom sama xarit la. sama promoteur bu mag bi kooku sama waay la. ak a baax billaahi ak a gën kooku champion la. moom moom du sama promoteur quoi kooku sama waay la Fallou Ndiaye moom it kenn du moom ci man billaay dañuy déggante chaque jour moom it sama gaan la ma koy ñaanal rek lu mu bëgg ci promoteur gi moo ko xam yàlla na ko yàlla defal di ñaanal tamit yeddaali ak ngéwal gi production moom it moo tëggoon sama combat maag doomu parcelle quoi man ñoo ñett promoteur yooyu laa xam ne yàlla boole na ma ak ñoom ñu nekk samay gaan ma leen di ñaanal jàmm. parcelle jóge nga ndax combat bi nga ci mujjee am am nga ci ndam waaye ndeke booy parcelles ba tey bàyyiwuñ la seetaan nga Atou Junior keroog wasaare làmb dégg nga li mu wax ci yow lépp ci combat bi nee na combat bi bëgg nañ ko nga jël avance ñu dem ba ci digg bi sa ménageur as delloo avance bi lan moo tax combat bi yàqoog yu demee noonu. waa xam nga xam nga Atou Junior moom man dama yaakaar moom ku la bëgg moom Atou. Atou moom laa moom ku ko rey la bëgg. xam nga la moo tax ma wax la lool xam a gars yi ay tàppet lañ mun na toog média bi tiim ko muy wax ay Baye Ba Ndiaye ay duma ko rey duma rey yooyu ay as ménager moo yàq làmb ji as nu mu yàqee suñu combat yow moom ku mu daan moom daanul kenn yow ay defet nga tegle. am na palmarès bu baax la daan limal ko limal. ah daal wax na ma ci palmarès am na cinq victoire quatre défaites. quatre défaites man damaa ñaan yàlla am quatre défaites ci làmb quatre défaites champion du am quatre défaites ci làmb. bàkki Cheikh champion du waaye mbër du bëri defet aatu yow demagoo fenn am quatre defet yow boo yow boo kon foo jëm nga bëgg dugg ci xa kii nga am xale bu ndal yow nee nga ñaata at nga am 30 ans yow magee nga ma 10 ans xuma vingt yow bu ma waxloo maa la mën maa doole maa la ëpp sañ fit yow mag nga paa nga am nga 30 ans yaa ko wax ci wasaare làmb mu koy dégg 30 ans nga am magee nga ma 10 ans waaw ñàkk ñàkk gëm-gëm a bañ gëm sa bopp moo la tardel si làmb daanoo kenn nga bëgg maa fontoo naan ay bàyyi man xale laa te maa la mën ëpp la fit ëpp la doole. léegi avance bi lan moo tax nga delloo ko. yow jot nga avance jotuma avance de. bàkki alxuraan jotuma avance mais dañoo yeddaali la. Hmm. mi ngi may dégg da dafa wax yaak aatu. Hmm. expliqué man ba ma man sax awiyee naa ndax moment boobu ñu ngi may utal adversaire ñëpp bañ. Hmm. ku ñu ne Baye Mandiaye nga bañ ñu ne ma yaag aatu. xam nga ma ne kon garaawul quoi naa ko jël rek instant boobu maa ngi doog a jugee Gambie. Mm. ma ne naa ko jël. Mm. yadaal na ma léegi koo fi mën na ko waa coono da ngay gis yadaal yi yadaal dafa seeti jëf adversaire boo xalaat ci àdduna seeti na la. Mm. ma jël aat ba mu jëlee aatu nag ñu dawal ñu dawal yàggul quoi sama gars yi commencé wax kuy aatu kuy aatu. xam nga ci la ñuy kii moom dafa tegle ay défaite affaire yooyu noonu te man maa ngi jógee cinq victoire nañu waxante dëgg. cinq victoire a dem sama yoon. après tamit coow lu commencé bëri kuy aat. defet la lu jóge Vito moo ko mujjee daan. Vito ñett defet la teg la xaw ma ñaar lu garaaw laa lay wax de. aatu même tournoi bi mu demoon bëre sax bañ dañ ko ba waaye kooku ku munul jël tournoi dafa dem ñu daan ko deuxième tour xaw ma benn jël la ci am ñu daanaat ko yooyu yëpp xam naa ko ma xam la mooy problème bi man xale laa ma man moom làmb boole wuñu sax mm. bu ñu bëre woon te bu ñu bëre woon man ak moom 5 ma daan ko 5 ba timis. bàkkee alxuraan maa ko ëpp ndoxtu bëri maa ko ëpp doole maa ko ëpp xol. kon da ngaa bëgg sëñ Bas mais bu jëndoon keesu mbiskit teg fee yaa aatu ku daan ñam aatu du ñam. bàkki Cheikh Ahmadou Bamba du du ñam benn xam nga wax yomb na. wax yomb na média bi di la mos wala ñeent sax la moo tax ma leer yàlla du mos dara média bi tiim la nii ngay wax naan ma Mandiaye toog fula neex nag naan ba mel ni yow ki wax ak benn booy boo xam amul bëgg-bëgg. waaw man yow ma lay daan yow daan man maa lay daan rey la moom du ma daan ndax munu daan xam moom sax mi ngi naan duma ma ko daanam du ma daan moom du daan man maa koy daan te man ak moom bàkki see bu doon ko daan sa morom rey ko moom du génnaat géew bi. léegi kaay ñu kaay kaay ñu xool léegi combat bi lan moo ko yàq parce que da ngeen sa say mbokk ñoo ne aatu dafa tegle ay défaite moo tax bëgguñu ko. Ah, voilà xam ni da ngay am kilifa yow bañoo man bañu ma. mais nit da ngay am ay kilifa waaw kon léegi léegi ngeen sëgg ko. léegi léegi bàkki alxuraanu karim ñu ñu sëgg yow aatu aatu daa aatu daa internet aatu daa liggéey. Eh, am na eh, taxaw aatu daa liggéey yow aatu maa ko aatu aatu xanaa interview bi nga ànd moom noonu muy loolu mooy liggéeyam Saal aatu dafa liggéey. saal bi man maa ne ko. loolu mooy léegi nit kuy internet nit kuy internet. liggéey lu os ah, même même bu ñamee sax dangay xam ni kii sportif day liggéey. Hmm. bu ko weddee jàppal beneen jour nga fekk ma saal wala nga fekk ma diin ya wala nga woo aatu woo ñu daje saal ma nag moom moom ma def lu mu defut wala nga woo ñu dem diin ya ma def lu mu defut. kon yow da nga bëgg wax yaa ëpp aatu doole yaa ko gën a ñeme entraînement. aatu am dara man may xale. mais 30 ans xale la. man xale bu ndaw la waaye yow imagine ku am temps ak ko am la 11 novembre la juddu 98. 90 ak léegi mooy trent waaw léegi da ngay xool les calculer ay atam ak sama at man kii toog sama mag la. kii toog ñooy ànd mais sama grand la moom day jàpp samay ko sama lépp. man xale laa xam la moo tax mënu ma yem ak ñoom aatu ñi hmm? maa leen ëpp doole maa leen gën a nekk xale te lu carrière bi di gën di dem nee naa leen nag lu ñuy gën di dem ma leen di gën a ëpp doole ndax maa leen gën a ñeme enterrement cent fukki junni yoon laa la wax waxuma la ay benn de li may wax ni boo déggee ma koy wax di ko waxaat dafa am fu ma ko teg cent fukki junni yoon ku ma ci toppoon ci ñoom enterrement ba ci Cheikh Ahmadou Bamba doo ñibbi wala boo ñibbee ndox ngay wala boo ko defee benn yoon suba da ngay feebar doo ñëwaat. léegi comme aatu doo ko jël say mbokk bañ nañ kan nga teg sa bët koo xamante ni jàpp nga ni moo ma Mandiaye numéro 2 làmb ju neex la ndax yow sa làmb da ngaa mën a boo duggee mu neex soo tuusee mu neex soo bëree mu neex maa la xam ba jaay li laa lay wax pour nga bàyyi ko xel làmb ji dafa bëri ay tapet léegi danga may laaj la moo tax làmb ji ñoo bëri ay tapet léegi ma Mandiaye mbër dina takk ngemb doon tapet ankay ndax mu nga tax ngeem rek sax waa koñ fuur la nga nga nga jiital mm. seen biir ka dem dugg si biir géew bi yàqamtee ñibbi jënd galaat loolu la loolu la dégg gars yi naan taxaw ci géew gi arbitre bi di la laal ngay kat kat di laal kat kat si xam nga affaire bi fit la uh-huh. fit nag yombul de gis nga góor yombul du mm. garaaw laa lay wax xam nga lamb bi dafa bëri ay tapet danga may laaj lan moo tax ay koña deux mm. tëkku moro te du ma ko mu a tëkku faalewu moro li jëntiwu moro mais xam nga moo ma ciy wax sax dañ mën woon sax bu wax damaa bëree dafa bëree kan la mujj bëreel. vie nan Dacia man ma bëreeg Hercule. Hmm. maak moom ñoo ko spécial bi. Hmm. moom daan ñin man ma daan. Hmm. amateur yi ñëpp di dox combat man ak moom kan la dem jëli ji. ku mu jëli dama woo am dégg naa sax ñaari defet la tegle te man mi di wax ak yow Fallou mi ngi may dégg dama ñu ngi may contacter pour tëgg samay combat man ko du jël kenn ku dul Kogna 2 ku wax dama naa la Kogna 2 laay bëreel. sib nga mu bàyyi ma fi dem dem jëli ji ñoo xamante ni deux défaites parce que xam la moo tax mu mu fiy bàyyi bàyyi ma Ndiaye bàkki alxuraan bu ma jëlee ma wane ko xam la laa koy wane dama koy humilier dama koy wan ni mosoo sa àdduna ñaar bi muy bëreeg gis nga Dacia ni mu ko ëppee mais liggéey ci combat bi de laa lay xam nga ñoom ñooñu du dara hmm. mais ñooñu seen mbër ak mbër bii nii toog bokkul ko ñaa de man du ma yegg ak moom foofu ko bu arbitre sifflé ma man ak moom sekkuma ak moom sax ay léewtoo ñoom xam nañ la moo tax duñ jël bàyyi ma Ndiaye déggoo li ma la na ko jël bu am joxe drapeau bi ndax poussière bu bari bu maa la koy wax fii laa la koy waxee li ma lay wax nii nga bind ko bu la neexee téye ko Kogna 2 fu ñu bëre ma daan ko bàkkee maa ko dama leen a waaye yow damaa boo ko Kogna 2 Ndiaye nag Kogna comme am na combat léegi bu dul euh, bu dul Kogna du aatu kan kuy ragalaat ci yow. ku la ku la ragal aatu moom bokkul sax suñu plan de carrière kooku. maadu du A du B du C. merci kooku moom garaawul quoi coodu ji mettiwul. mais Kogna de tàng moom. làmb bul wax du ma bëreeg diw. non maanaam bokkugu ci quoi da mun nañ bëre mais bokkugu ci. Mhm. mais Kogna de tàng moom tapet la. Mhm. tapet na ba bàyyi ma fi dem di jëli ji xaw ma. wës jàmbaar la jël waaw xoolal loolu. wës jàmbaar jàmbaar gi rek jeex. dégg naa champion la mais xaw ma ko quoi mais dégg naa champion la nag. mais tapet moo waral mu bàyyi fi bàyyi parce que moog Baye Mandiaye moo nekkoon lambu amateur lambu joo am bu ñu duggee si géew ñëpp bég bu ñu signature ñu bég bu ñu feccee maag moom ñëpp bég dañ ma daan woo di ma wax maag moom sax grand combat promoteur bu ne woo na ma spécial lu ne woo nañ ma ma ne leen du ma bëre kenn Kogna 2 laay bëreel mais c'est que comme ni ma ko waxee ni moom bu ko déggee day jàpp ni dama koy tokk mais dama bëgg nga xam ni tokkuwuma la man affaire góor laay def quoi waaw yëfi góor laay wax mais même pas ma tokku la merci ki nga bëgg da nga naan diw laa bëgg a bëreel. am ñëpp dañ ne moom champion la. xam ne ñii say naan ñëpp dañ ne moom champion la. Mhm. te man dama bëgg loolu noonu. te pour nga doon champion foog nga daan koo am ñëpp dañ ne champion la. Mhm. te Kogna 2 buñ siflee man seekuma ak moom léewtoo mu may yab. du gars du dund ak moom nii man dund ma ko moom man fii laa juddoo baaliye damay reyanteek moom te bu taxawee bu bu bu xeexeeg man ma dóor ko mu génn mu daw wala ma dóor ko ba mu daanu te bu bëreeg man bàkki Seex Ahmadou Bamba ma def ko lu bon. moo tax ma ne du ma yegg ak ñoom foofu. kooku am na komba Kogna 2 moom pare nañ ci ay mbiram léegi kan nga jàpp ni fi mu toll nii ci mbër yi amagul komba war ngaa mën a laaleeg ñoom mu neex. waaw man instant bi moom duma ma tëkku benn mbër xam mbër boo fi tëkku rek mu toog seen kër naan galaasam di fuggali ay mbagg mbër yi ñoom ñoo soof mbër yi ñoo mën a ñoddi. comme yan mbër wax ma say naataangoo rek léegi ma léegi ma du ma lim laaj. mais instant bi tax a gars yi. làmbal ma koo xamante ne jàpp nga ni tey buñ ko seeti woon gis nga gis nga bëreem daal gis nga njàmbaaram. waaw abu abu ñaase. bul ci dugg. abu ñaase ku mun Moustapha Gueye de dafa mën a daan Baye Mandiaye. Eh? Tafa Gueye de Baye Gueye de dalaa mën a daan yow. Tafa Gueye de waaw. dix combats mu daan ma dix fois yow Tafa yow <laughs> ah bàyyi ma waay Tafa Gueye de yow xam nga ne mënul a daan. ah bul wax loolu Tafa Gueye de. abu ñaase buñ dañ ko seet ji léegi léegi ñu taxawal ko nga xool ba xam mun na maa daan. man bokkuma ak ñoom ñoom génn buy génn di rëbb ji ak génn buy toog bañ ne la yàppa ngi nii nga dooral sa bopp bokkul man damay génnal sama bopp di rëbb ji di amal sama bopp nag te li may am sama doole moom ma koy may. ñoom dañuy toog ñu rëbb indil leen ñu rëbb indil leen man damay génn. voilà man damay génn dem lekk ji cere nekk ci pënd bi. du ma gis yaay du ma gis baay di fanaan foo xamante ni man la suma waaye neneen la demee sacrifier life bi. parce que Abou bu déggee li ngay wax ni du ne da nga koo yab Baye ma yab toog wasaare di ma tëkkoog yu demee noonu. man Abou Niass dama faale ba koy yab koo dama kaa lijjanti mais làmb laay wax Abou Niass daan Tafa Gueye di direeku di raam. Hmm. te man ak Tafa Gueye 2 bu ñu tëggoon suñu combat Tafa Gueye 2 bu dawee ma daa xaju ko na ko dugal samay tànk mu dugg ma boole ko ko daan ko ndax mënul samay tànk dara hmm. mais kooku prix pa daan Tafa Gueye 2 doo daanee bàyyi. Tafa Gueye da nga faa jaaree xeeb ko. waaw dama koo xeeb waaye kooku daf ñoo ñun ñi nga xamante ni contre petit la voilà ñu ko daf ñoo ñaaxal fayda quoi. billaay su ma ko amee jël de. Hmm. waaw su ma ko amee léegi léegi léegi léegi ma jël avant bi jox ko njool mi mu jox ko na Ndiaye yaa ngi ñuy dégg idaal ñu ngi yaa ngi may dégg euh, ak ñeneen ñi nga xamante ne ay promoteur lañ ci làmb euh, xale bi dégg nga li mu wax nee na Abou la bëgg mook Abou Niasse nag combat la combat bu neex la ndax xale bi bu defee six combat am ci six victoire palmarès bu baax la ci làmb. doon na koo xamante ni bu jugee mbooloo géejawaay gi dañuy jóg fépp fu waay ne dina jug topp ko moom ma Mandiaye numéro 2 xale la mais xale bu mat a bàyyi xel la ci làmb wax naa leen ko wasaare làmb dañoo nekk site boo xamante ni dañoo ñëw ngir xale yi nga xamante ni dañoo bokk ci làmb te bu ëllëgee làmb di leen waxtaane ñu seet leen dénk leen suñu micro ngir ñu waxtaane moom Baye Mandiaye li ñu amoon ci waxtu jot na xanaa dañuy bàyyi nga tàggatoo rek. waa di kontaan rek di na leen yàlla defal jàmm yàlla na leen yàlla dooleel parce que yéen ay borom baax ngeen quoi oyof ngeen xeeboo leen kenn ku leen woo ngeen wuy si ko te xaaroo leen tamit ku leen woo yéen a ngi jàppale jeunes yi xam nga yamale woo leen ko ci mbër yu mag yi tamit kese quoi te yàlla xam na ni dañ naan nit ki bu la bu la jiyee baax teraanga nga koy fay wala manoore di ngeen raw ku lu seen maas man maa leen ko wax ndax seen xool bu rafet oyof ngeen ay taalibe ngeen sa maan bu ñaawal moom it kenn du moom sëñ ba defal nañu léegi ay teraanga gis nga oyof baax lii yombul quoi hmm. ñu leen di ñaanal nag ngeen dem ba ay télé télé télé ci bàcc Seydina Mohamed li may wax sam biir xol bi laa ko tubbee maa ngi leen di ñaanal jàmm daal li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla na leen ko yàlla defal ci bàcc Seydina bu loolu weesoo may sant sama waa koñ hmm. comme d'habitude di sant sama mag Abdou Mbaye Anta Thiam Mbida Xaadim Seex xam nga di sant suñu waa kër di sant na mu ndaw aw ma fayam xama di ko ñaanal rek yàlla baax ak sogom quoi li ma bëgg ci moom ma ma def ko. di sant tamit sama yaay di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram xam nga di sant képp kuy bëggee Baye ma Ndiaye sama fan si club bi mooy jël nuyoo di ko teg si présidente bi muy jigéen muy géwal maa ngi ko teg sa loxo di sant tamit natu séeri Balla garaajeere Koli amuxulay jinne Arma njaago bi njaago bu tàng bi Malick Jibi Balle xam nga ma leen di sant di leen gërëm di leen bàyyi ak yàlla ko quoi ñoom Zil Ndiaye amit bëgg sama muxaat si nab Ibooy ma koy sant moom it waa Gambie voilà surtout waa Gambie falaa laa nekkoon fa laa waajee saison bi waaw ku ci mel ni Faras am na combat moog leket ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam di sant Siteu Malick Niang moo ma dalal néegam buggul ma xiif buggul ma mar ñuy ànd di entraîner matin soir waa Gambie maa ngi leen di sant di leen gërëm waa di nuyu nag képp kuy bëggee ma Mandiaye rek amateuru làmb yi ma leen di bëggee. xam di di suyaar ñëpp di ñaanal Alioune Seye 2 yàlla na ko yàlla may ndam waaw di xamal ni tamit boo duggee ci kër dóor nit dóoraat fa nit yaakaar naa ni tamit borom kër gi war na génn dafa am mbër moom it dafa am mbër moom dugg naa parcelle ñetti yoon. Badou Badou moom mooy borom kër gi te daa war a kër gi te moo ñooy ànd. dafa génnee ko yóbbu de. waaw kooku loxo mi day damm rek damay ragal nag suñu bëree par dootul amati loxo. la dootul amati ay loxo. dóore rek man man du ma yegg moom sax ay dóor dam dootul loxo mi moom xam naa ne fa lay jaare rek dootul amati ay loxo kooku dafa mbër. parce que moom ku mu dam damm. ba pare moo gën a wax fii. ku mu bëreel damm Alioune Sèye ko daan mu naan ay recours yow xale bu ndaw di bëre ko am nee moo la mag mënoo ko daan ba pare def ay recours rek di ko ko féete. ñëw ñu bëre bàyyi ma jaay nga ni Alioune Seye euh, kii moom Tapha mbër moom waxuñu ko moom toppeel teppal côté moom Tapha mbër moom dépassé na ndax Alioune Seye junior la daan su ma la wëree ndomb sama loxo damm sax ma daan la ba pare doo doogu jug dem hmm. ñooñ seen ndox ndoxtu bëre daa bari yow yaay wër nit ko ndomb di daw dóor ko ku ba pare daw bu ma la wëree ndomb ma lay daan daa daw mais si tàng tàng bi noonu waroo ko yëg bu dee góor nga góor yëfi góor làmb affaire góor la mais pare dem bànd sa loxo bi une semaine nga dind ko wala bu recours bu jàllee nga dind ko di guux nit ñi. gars yi yow làmb lu si nekk sànq maa la koy dafa bëri ay tàppet ay ay affaire yoo xam ci suuf ay détails. Babou Ndiaye nañ bàyyi ñu tàggoo rek ndax xam naa ne li li duuf ci nag bi xajandoowul ci tin tin waaw waa guy gi di leen xamal rek seen doom a ngi nii xam di sant tamit sama dawal ko waa Njett Mbaar ma jambay sama papa allah. xam nga di sant jéeri ngoone yëpp maaloobe sàmba yi ku lu métti seenga ndaat faali ku ma ndaa mi tëx bi xam nga balaa dégg fukki balak ñaar na tuy géwali ndaat ak géeri ndaat koo ci way maaloobe sàmba ah bàkki yonent bi di leen sant di leen gërëm di sant képp kuy géwal di sant sama mbokk soose yi nag maa ngi ni jéeri ngoone bàkki yonent bi maaloobe sàmba ngi nii toog tëx bi bàkki yonent bi sama maama tëxoon fukki jaar ba a bara jaar na yàlla mooma sama maama tëxoon ko ci waay maa loobe sàmba lay wuyoo bàkki ah. sama mbokku géwal seen jàngu ndaati samedi bi passé la woon ñoom Begaay Mbaye Modou Mbaye ak ñëpp ngi fa woon samay mag Abdou Mbaye ñoom Tafa Mbaye di leen santaan rek di sant képp kuy géwal di ñaanal géwal jàmm man doomu buur géwal laa xam nga di sant tamit sama mbok soose sama yaay soose la ma leen di sant xam nga di wax tamit sama mbokk soose ñu jug jàpp ci quoi di sant uh, waa guy gi sama xarit jibi bala pël bi daa voyagé moo tax sax émission bi moom fekk ko fi kooku sama gaan la xama nga Malick koy waxaat Malick Milka yàlla na ko yàlla defal jàmm mooy sama kilifa kii toog nii kii ngay gis mooy sama lépp ci àdduna moo may jàppale moo may dooleel mu jibi balle ñoo may ñoo nekk sama ginnaaw man ragalu ma dara di sant sama sëriñ kaaw sëñ kaaw génnal ma lii sëñ kaaw maa ngi koy sant di ko gërëm di sant tamit Thierno Salif kaaw ma lay ñaanal yàlla yàlla defal jàmm yàlla may la gudd fan. Thierno Salif maa ngi lay sant di la gërëm di sant waa funjuñ waa caare waa Fimela waa sàmba waaw waa Diourbel tamit ma leen di sant di sant sama maire bi sooy samay kombaa da ciy jàpp. da si jàpp bu baax wóor na Serigne Touba Mbacke di sant sama benn tante Ami mooy togg ceeb bi sax samay combat quoi di xamal nag tijjil naa ñëpp sama buntu dina xamal ni Baye Mandiaye moom pare na bu jugee gox bu mu dëkk dañuy jug day xeex day bëre day fecc te mbër duma ma may dara mbër bu ma ci jekku bul ma mooy mbër bu ma ci jekku man duma la mooy waaw. Baye Mandiaye gis nga bi ma demee seeti mbaytin 2 daf maa jox benn paa ma yëngu ma dem seeti Ibou mécanicien seetaan nga seetaan naa ko. mu jox la benn paa. nga yënguwaat ah. ah, ah léegi yow loo may jox ba yóbbu. comme gars yi léeg-léeg sama yaram bi daa am code. daa am code léegi yow ah, ma xool. <laughs> Ah. ay sëñ yaay dem. soo demee yóbbu ma. ba yóbbu la waaw. sëñ Bas sëñ Bas jëlal lool. <laughs> ah Bas tey damay demaat. loolu tey foog nga dem. ndeysaan damay yëngu. fii la ñuy taxaw. ba da ngay arrière ree rek jël. Baye ma Ndiaye bay teral ay ca Baye. demal. ah ki dara ki dara baax kenn kenn daan daan daan daan. ayca lañ dellu ay ñooy bokk ci dëkk ay ay. sëñ Bass Baye Mandiaye laa gëm ndeysaan mbër la grand champion jaajëf mbokk yi seetaan wasaare làmb làmb noonu la ay xale lañ dañuy fo rek bëgg askan bi bëgg kontaan képp kuy seetaan wasaare làmb nga di ci gis sa bopp baay Jili la ak ma Mandiaye tey ndeysaan lool laa leen indiloon ci wasaare lamb ñu leen di tàggu tàggoo bi nga xamante ni moo di tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jaajëf mbër jaajëfati jaajëf beñ baa nga noonu